dans votre 2 je analyse cette année vidéo bi Ousmane Sonko comme immaturité c'est c'est ça dañ leen vidéo bi ban combat sama xew amatina dama bëgg jeunesse sénégalais bi déglu à partir de maintenant ñu def li nga provocation la déglu ma bu baax li ma len di wax stratégie bu fiable pour ñu mëna a récupérer le plus vite possible Ousmane Sonko ci kassa bi légui ñu libérer ko légui ñu libérer détenu politique yi te am élection yu transparente sama gars yi xew-xew bi dama bëgg à ce que ñu def li nga xam moy provocation wuré ba dem na këng mu làmb jaa ngi nii taxaw na nañ tak ndigg yi fas yéene jàkkaarloo waat ak li nga xamante ne mooy gouvernement Macky Sall ak ña di gunge ak ña di accompagner sama gars drapeau russe la bëgg ñun sénégal sénégalais ñu koy jël léegi di ko doxantoo ak suñu drapeau vert zone rouge bi ak étoile bi ci digg ba ngir def li nga xam ne mooy provocation est ce que xam ngeen ne Macky Sall France bi koy gunge ak États-Unis ñeneen ak ñeneen bëgguñu ñàkk Sénégal te gis nañ ne Poutine instant yi nii mu ngi conquérir li nga xam ne mooy territoire africain bi nam ko defee ci biir Niger te Poutine moo wax ci gémmiñam mu ne population africaine bu ma incité provoqué ma pour ma ñëw dama ciy dugg ba jeex ci tàkk ndax dafa jot ngeen am seen yëfi bopp bu dara sax bu len ken gumbo saraxatul warna la baye mana bàyyi air yalwaan warna seen ay resource warna la sama gay buñu baye efikas li mu jall efficace lu efficace ngi ni bis buñ ko defon léegi léegi léegi léegi ñu am réaction ndax gis nga putin lu muy sik sik sik sik yep ndax kat la mo ñu gënal fukki junni yoon Macron ndax Macron il est un homme sans cœur mais putin bu dara tank na man na defante waye il est quelqu'un bo xamantene amna am ngëm-ngëm il est croyant sama gay lii ma leen di expliquer nii wallahi azim provocation la boo xam ne dina joxe li nga xamante ne mooy résultat le plus vite possible ndax su boobaa Macron États-Unis euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy gérer Macky Sall di ko gunge ñoom ñooy seppi Macky Sall mbattu ko ci biti ndax dinañ ne ko carrément Macky sa population bi instance bi jamono ji ñu ngi commencé di insister Poutine te bu ñun dañuy ñàkk Sénégal te bëgguñoo ñàkk Sénégal ndax instant ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall bëgguñu ñàkk Sénégal bëgguñu ñàkk gaal seen bi dinañ def le tout possible nag boobaa ñoom ñoo fiy génne Macky Sall te bu ma ne leen Qui des États-Unis qui de France ni di Israël ni nga de ne ils sont ils ont les capacités Nous am une capacité de Macky Sall ci réew mi pouvoir Ils wallahi asim am nañ capacité Maxal, Macky Sall ci pouvoir nous, ils n'ont ils ont pas des amis ils amuñu ami amis. seen interpersonnel lañuy défendre comme seen interpersonnel interpersonnels, défendre nag kon Macky Sall du seen population bi yéen a war def provocation manifestation yi stade yi fépp fu ngeen dem di sonkoriser yóbbaale leen drapeau verte zone rouge bi ak drapeau li nga xamante ne euh, mooy mooy drapeau russe bi pur à ce ñu provoquer def genre provocation pour bëgg ñoom ñu réagir ñoom ñi nga xam ne ñoo gunge Macky Sall dinañ réagir bu ñu gisee ne yéen population sénégalaise bi yéen a ngi commencé di provoquer Poutine di ko inciter di ko xëcc ci yéen ñoom dinañ réagir le plus vite possible ñom ñoy joxe ordre Macky Sall pour mu bàyyi Ousmane Sonko pour mu libérer détenus politique yi moom ñoom ñooy joxe ordre pour ñu organiser ay élections yu transparente Ousmane Sonko day bokk par la force te dina jël réew mi téye ko ndax sama gars yi bëgguñu Russie duggal loxoom ci biir Sénégal nam duggalé loxoom euh, Burkina nam duggalé loxoom Niger nam duggalé loxoom euh, comme c'est dit yenen dëkk yenen dëkk wallahi azim système bu efficace ngi non système bu efficace ngi non. nañ ko nañ leen provoqué xeex la

dagan na nañuy xel di jël drapeau russe bi provoquer li nga xamantene ñi nga xamantene ñoy gungé Macky Sall wallahi azim billahi wallahi wa ta'ala li man dama ko gëm buñ ko defone légui ñu am réaction li nga xamantene moy ñom ñu jël décision gérer situation bi parce que li ngeen di gis ni yépp ñom ñoo nekk ci ginnaw di xam Macky Sall ñom ñoo nekk ci ginnaw di buux Macky Sall te ñom ñoo ngemb Macky Sall te ñom buñu sañon putin du dëgg tankam bir gal sen te putin du dëgg tankam bir Sénégal kon sama gars yi lan la ñuy nekk nii di xaan na ñu jóg pour ñu provoquer leen ñoom ñu réyagir il faut ñu provoquer leen ñeen benn provocation bi nag lañ am mooy sama gars yi nañuy jël drapeau Russie di ko doxantoo di ko jël di ko doxantoo biir Sénégal exemple bu ndaw laa leen jox gis nga manifestation bu amoon tey nga gis gone ko yor drapeau Russie police wala gendarmerie wala nervi di jaay dëgër fit ba ne danga koo tiré mu ànd ak drapeau bu wàcc ci suuf Poutine Poutine lu leer ni mi di laa leen tagal

pexe boo meuna a jaar rek ba mën a am rayaat euh, euh, résultat rek sama gars yi dagan na lii mooy xew-xew bi nga te li moy deug kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo kàddu bi nga xamanteni ñi top ci ginnaw Ousmane Sonko ñi yaakaar ni Ousmane Sonko moy la solution Ousmane Sonko moy ku sell ki gis ngeen kàddu yu mu yëkëti je crois que nit ku am xel nit ku du réfléchir je crois que du kàddu yi tay lañ doon xaar ci ñi nga xamanteni ni ñoo doon défendre Ousmane Sonko nek ci réseaux sociaux yi di fëgg dënn nek ci réseaux sociaux yi di saga nit ñi nek ci réseaux sociaux yi di menacer nit ñi nek ci réseaux sociaux yi. di sosal doomu aadama yi nekk ci réseaux sociaux yi bépp góor bu fi wax dëgg ñi taxaw daggal la ay saaga yu kenn te tegul fen kon yaakaar naa ne bi ñu tàmbalee seen gasta gasta Sonko ku ko laal sànku Sonko nangam sàngam Sonko waliwu la léegi ñoom nee nañu nañ dem ci provocation naka la ñuy provoqué nee nañu comme yi ñoom dañu ànd ak Sénégal te Russie moom àndul ak loolu Russie dugg na Niger ba une fois coup d'état léegi nañu provoqué nee na léegi ci provocation lañu jëm nañu jël drapeau Russie boole ko drapeau Sénégal commencé critiquer de ce fait pour Russie dugg ci maanaam Poutine dugg ci pour que ñu mën a libérer Ousmane Sonko pour man da ngeen ne woon Sonko kenn du ko tëj. pour man da ngeen ne woon Ousmane Sonko kenn du ko jëli man leen nul au-dessus de la loi kuy xex ak état dafa fekk xamoo luy état kuy politique jóg di song état dafa fekk yow xamoo luy politique xamoo lan mooy école politique xamoo lan mooy base politique donc je crois que tey ñii ñoo topp ci ginnaaw Ousmane Sonko et il est temps que Sénégal ak jeunesse bi ak ñi nga xamante ni tey mooy suñu yaay yi ak suñu papa yi ñu nekk ci biir kër gi te ñu bëri xamuñu ko ñentaay yi ñi leen di nettali ñu leen di delloosiwaat xel que ñii ñoo nekk si ginnaaw Ousmane Sonko ñi doon xeex gassa gassa di fi rey ay nit di taal ay pneu di taal ay kër jaamur tey ci provocation la ñu mujj ana gassa gàtta gàtta ana dañuy jógee Casamance de loger ji Macky Sall je crois que lu mat a bàyyi xel la